yéenekaay yi ak la ñu xëyee Cheikh Bouya Ngoné lañ ci àndal Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatick. naka suba si. ça va suba saa yi di ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah maa ngi nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média. aywa téléspectateur sànq yaa ngi doon wax da nga nekkoon ouest. dama waaw j'étais complètement <laughs> yaa ngi nelaw de ah. <laughs> c'est le ramadan aywa ñu dem euh, ci yéenekaay yi doore ko ak l'observateur à la une dellu siwaat na. Euh, ci point de presse bu procureur général de Dakar. ni ki démb la woon ca tribunal bu Ndakaaru dikkat na itam ci ay poñ yu bari du ci mel ni. Euh, le commando ak itam lien bi nga xam ne itam am na ko ak ancien membre yu MFDC lépp lu euh, soxal itam mbirum ki nga xam ne moom moo di Sébastien Sagna se lave à grande à grande eau lu nu mel rek daal di xëy euh, fësal lu ñeer itam l'enquête wi nga xam ne dikk def nañu ko mu ñeel rapport bu cour des comptes loolee lépp nag procureur général dikkaat na ci bu baax a baax leneen itam koo xamante nii fa mu taxawoon jugu fa benn yoon moom Ousmane Sonko itam daal di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni weddina wecc euh, ki nga xam ne moom moo di euh, procureur ci kàddu yi nga xam ne euh, daal dina koy yëkkati leneen itam loo xamante ni boobaak léegi da koy santaane ci askan wi muy ñu dekk daal di wan ginnaaw ki nga xam ne moom moo di njiit mu réew mi rapport ak itam Amnesty International Sénégal itam taxawaay wi nga xam ne amal na ko jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di LGBT yi nag xam nga ne ni kii euh, euh, euh, démb ñu ngi doon janoo ak way taskatu xibaar yi kii fas Mame Matar Gueye lu ni mel la rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 3 le plaidoyer d'amnistie en faveur des LGBT kii fas Mame Matar Gueye leneen ci loo xamante nii Euh, dikkaat nañu ci ci page neuf euh, bokk na euh, ci jaar-jaar ki nga xam ne moom moo di docteur Ahmad Lo mu mel ni tam kenn koo xamante nii am na lool taxawaay ci wàllu diine page onze moom wax nañu célébrité yi nan lañuy amalee li nga xam ne moom moo di soirée bu Ramadan bi maanaam koor gi ak euh, guddi gi nañu koy amalee menace ci lu soxal euh, grippe aviaire bi itam euh, dikkaat na ci bu baax baax mu mel ni lu ñu lu ni mel soxal na njanaaw yi mu mel ni itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu ci yële jamono ñu ngi ci aw njàqare ku mooy wul itam ginaar mënees naa ba ñu am ci li nga xam ne nag moom moo di korité bi wàllu tàggat yaram itam dikkaat nañ ci bu baax a baax ci CAN 2023 gaynde Sénégal yi ni ki démb ñu ngi doon laale ak itam Mozambique benn bal dara la boobu la match daal di tëree U23 euh, itam dikkaat nañu ci défaite bi nga xam ne am nañu ko euh, faat ñu jàll. ñu jàll ci enquête mu des ba tey ak euh, le procureur. ak le procureur kàddu yi nga xam ne itam daal dina koy euh, yëkkati mu mel nii itam lépp lu ñeel complot wi nga xam ne dañu njort ne ñi féete ci kujje gi ñu ngi ko doon nas procureur bi daal dina dikkaat dogot dogot lu ni mel. Hmm. lu soxal itam li nga xam ne moom moo di ngalax wi waajtaay wi lu muy muyul lu ni mel nag mënees naa jafe ngir ñu teg ko gët ndax lenn ci loo xamante ni day ànd ak moom te gis ko ci marché bi jafe-jafe la. ñu dem ci le quotidien ñoom ñëpp xëyee ak euh, le procureur. mu mel ni itam dikkaat nañ ci benn point boo xamante ni euh, mënees na intéressé askan wi mu ñeel euh, frais wu séjour wi nga xam ni itam moom Ousmane Sonko am na ko fa nga xam ne nag moom moo di ca suma assistance lépp lu soxal itam Yewwi Askan Wi ak manifestation yi nga xam ni ki tey la ko bëgg door ñoom nag dàq nañ ba mu set lépp lu soxal dogalu ki nga xam ne nag moom moo di préfet bu Ndakaaru soleil le soleil mu mel ni itam procureur indiwaat na bu baax a baax yenn ci ay leeral yoo xamante ni itam euh, ñeel na mbirum Ousmane Sonko ak itam ki nga xam ne euh, moom moo di euh, Mame Mbaye Niang groupe commando ak itam vague d'arrestation yi loole lépp nag dikkaat nañ ci bu baax baax ba ci sax li nga xam ne moom moo di fonds force Covid 19. ñu dem ci euh, libération. libération ak itam mbirum ki nga xam ne nag euh, moom moo di euh, yarga si yarga itam moom lañu ñu njort na rek na la yóbbu Ousmane Sonko ca suma assistance jugu ca benn yoon moom mi ñu njort ne mi ngi bootu ci Pastef bu ñu sukkandikoo ba tey ci ki nga xam ne moom moo di procureur waaye itam Ousmane Sonko génn wi nga xam ne def na ko la mu jàppee wa yarga bokk na ci freeram boo xamante ni saa su ne dina koy gunge ci lépp loo xamante ni nag da koy amal. Euh, ci euh, réew bu euh, Sénégal ginnaaw itam ca Thiès jàppal ne duwaan yenn ci loo xamante ni daal di na koy jël ci ay billets noirs ginnaaw ay xayma toll na ci benn milliard ci suñu ay koppar ci Kër Massar la ñu rek foqatee lu ni mel faat yi ñu dem ci la tribune. la tribune di kaat ba tey ci mbirum ki nga xam ne moom moo di procureur kàddu yi nga xam ne daal dina koy jibal samp yi itam ay laaj yu bari ndax yarga Euh, dañu ko rek euh, daal di euh, arrêté lu ni mel laaj la woo xamante ni samp nañ ko moom docteur Babacar Niang wi nga xam ne ci la jamono bañ na ba tëdd ca ñag ba ne rek du takk benn yoon li nga xam ne moom moo di bracelet yi ñuy takkal ñi nga xam ne dañu amlante ak wàll yoon. Walf Quotidien. Walf Quotidien dikkaat ci soupçon bu connexion ak itam MFDC il cherche. dissoudre euh, Pastef lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di euh, page 3 euh, di kaddu yoo xamante ni yëkkati nañu ko xëy nañu fësal nataalu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi ci mouvance présidentielle ci suuf itam fësal nañu ki nga xam ne moom moo di nataalu procureur. ñu dem ci euh, les échos ba tey ak actualité boobu lee ba tey ak actualité euh, bu ni euh, mel mu mel ni itam soxal mbirum Ousmane Sonko ak itam li nga xam ne amalante na ko ak wàll yoon page 4 moom moo daal di fësal ndaje wi nga xam ne procureur mi ngi ko doon amal ni ki démb. bés bi le jour. bés bi le manifestation ak itam violence yu ñu nemmeeku fii ci réew bu Sénégal jamono yi nag jàppal ne fu nekk la inde bi di suusee soxna Faty page jàpp 8 cinq moom moo fësal lu ni mel. aywa euh, procureur Bakhoum ba tey ci euh, euh, las euh, procureur Bakhoum mu mel ni itam bépp projet woo xamante ni Pastef tegoon na ko dal nay addu ci lépp lu ni mel faat yi ñu dem ba tey Vox Pop Vox Pop itam lu ni mel rek daal di xëy fësal mu mel ni itam photo Ousmane Sonko ak itam procureur moom Bougane Gueye Dany itam daal nañuy fësal li nga xam ne moom moo di nataalam l'artisan de cette destruction de notre état de droit n'est personne d'autre que le président président euh, Macky Sall moom nag boobaak léegi dégg nga kàddu yi nga xam ne euh, da koy yëkkati euh, jëmale ci ki nga xam ne nag moom moo di njiit bu réew bu Sénégal. ñëw ci source ba ak le procureur Bakhoum. ak le procureur Bakhoum kàddu nga xam ne yëkkati na ko ni ki démb ca tribunal bu Ndakaaru lépp lu soxal itam doomu aadama yi nga xam ne laale nañu ci lépp lu ñeel manifestation yi ni ñu njortoon ne dañu ko bëggoon a amal ci réew bu Sénégal te mujjut sotti ñooñee ñu tibbee commando moom procureur bi dikkaat na ci bu baax a baax. ñu ñëw ci le témoin quotidien. affaire Amadou Ly commando ak itam docteur Babacar Niang maa ngi koy wax le quotidien si la xëyaat bu baax a baax douane 3 milliards de francs CFA en faux billets saisis en mois d'une semaine ci diiru benn lu mooy benn ay bés lu toll ci ñetti milliards ci suñu ay koppar yoo xamante ni. douane nangu na ko ci ay defkatu ñaawteef koppar yi bari na lool. l'ordre public, tentative d'assassinat de Sonko, affaire euh, docteur euh, Babacar Niang la lourde charge du euh, parquet lu ni mel la rekk daal di xëy fësal mu mel ni ñoom ñëpp nag ci lu ni mel la ñu rek daal di xëy mu mel ni itam jàngukaay bu kayo ba di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ni ki tey jii itam daañu tëj ay buntam ndax manifestation yi nga xam ne foofee la ñu ko bëgg dooree. tàggat yaram ak record. Mozambique Sénégal ni ki démb xam nga ne lañ doon amal match retour bi Sénégal itam si la daal benn bal ci euh, dara mu mel ni itam euh, gaynde yi daal nañuy teggi bépp ndiggi sërëx woo xamante ni euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu réew yooyee nag tegoon nañu ko lu soxal itam qualification bu coupe d'Afrique bi ñoom itam daanaka am nañ li nga xam ne nag moom moo di seen ak biais moom Sadio Mané attaquant wu gaynde yi Sénégal yi la mu xamle moom moo di dafa compliqué lool nga toog ñeenti weer yoo xamante ni nag duggoo ci terrain bi. mu dem ci stade ba tey. validé la rek daal di euh, di peelu ni mel billet validé mel nii nag gaynde yi am nañ la tax euh, ñu war a mën a euh, qualifié ci li nga xam ne nag moom moo di Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire atum 2024 aywa sunu làmb jeexal. ginnaaw rek moom Sa itam daal di nay rek dëgmal ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine sunu làmb moom moo rek daal di xëy fësal lu ni mel pàcc wu njëkk wi nga xam ne moom mooy li yéen i kaay xëy fësal ni ki tey. Mhm. lan la ñuy waxtaanee. yóbbu ma l'observateur merci beaucoup jërëjëf. tout à ñaareelu pàcc bi ñu a allah Cheikh bu yaa ngoone la ñu àndaloon eh, ci yenn kaay ak la ñu xëyee pàcc bu njëkk bi